wala 70 607 10 10 yaakaar naa ni mën ngeen a am ci jus bi nga xam ne mooy juriment mën dem suñu mail ngeen envoyé ñu mail wala suñu site internet ngeen procurer ci jus yi nga xam ni mooy jus ma naa ni am na li nga xam ni mooy mooy ananas ak gingembre am na euh, li nga xam ni mooy ditax am buy am bisap deux bisap am mad am cocktail am mangue am tamarin am corossol yaakaar naa ne yéen ñi bëgg jus wala ngeen bëgg jus bu baax wala bëgg jus bu neex mën ngeen a procurer euh, ci li nga xam ni moom mooy jus bi nga xam ni mooy jus ma ci Sénégal lañ ko defaree ay doomi Sénégal la ko defar foog naa ni jus la boo xam ni tarkal la am na solo lool ngeen bàyyi ci xel nañu dem euh, ci euh, li nga xam ni euh, moom mooy lii xew le 15 lii xew le le le le 19 lay xew le 19 juillet le parc du rire le parc du rire ma ngay amee fi nga xam ni moom mooy ca Blaise Senghor ca centre culturel Blaise Senghor mu ngi noonu yéen a ngi koy gis centre culturel bu mag boobu lay xewee spectacle boo xam ni humour la ci centre culturel bi nga xam ni Blaise Senghor suñu directeur artistique moo koy xewle mais artiste Abba Show yëpp artiste. comédiens yi nekk au Sénégal yëpp ci participer mën ngeen a daw gaaw wuti seen ay billets entrée simple bi 3000 la VIP bi 5000 la yaakaar naa ni mën ngeen am seen billet bu ngeen wootee ci 77 011 31 73 wala 77. 268 33 63 mën ngeen am ci seen i billet te xam ni li ngeen fay xaar lu lu salta lu mbedd leen fay xaar loo xam ne lu ñu organiser wul la lu doy waar loo xam ne bu ngeen ñëwee da ngay reetaan ku nekk di jaar fu la neex tarkal la ambiance euh, bi fay am bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ambiance bu doy waar show bu neex waaye boo ñëwee fekk ambulance ci buntu centre culturel Blaise Senghor ab ambulance pipon pipon ku dugg ñu jox la fiche boo xam ni 18 lañ ci bind nga xam ni foofu nar sa am jàmm reetaan ba woo ambulance mu jël la nga dem euh, keneen ni sa place parce que li nekk ci biti mooy ëpp li nekk ci biir ñu leen ci invité yéen ñëpp Aba man Aba No maa koy présenté équipe bu Aba show bi yëpp li koy tëj mooy li gën a doy waar ñamaxit ak cas ñànku ak ndukure ak jibisee ñoo koy tëj ci benn comédie musicale boo xam ni enregistré lu lii kenn mënu ko nettali kenn lii mënuñu ko wax ku ko fekkewul li war a xew le 19 centre culturel Blaise Senghor fekke ko moo gën ñàkk ko bañ a fekke parce que bu ñu la koy nettali fa nga toog ngay toog di jooy on est de tout cœur ñu ngi ci biir bu baax a baax équipe bu Abba Show ñooy organiser ñoo koy def ba mu neex la parc du rire moom lañ ko moom lañ koy wooye donc ñu ngi ci invité ñëpp acca nañuy raxas li nga xam ni moom mooy <laughs> cam la ilaha illallah dañuy raxas doom de Paris niñ koy raxasee mooy ki nga xam ni mooy ba eben prod ba eben prod nga xam ni moom xale bi moo organisé kii nga xam ni moom mooy xale bi kii moo jël kii yóbbu ko ca Sorano kii moo tëgg kii woo ko lëg 15 juillet bi nga xam ne mooy ce samedi raxas Dôme de Paris yaakaar naa ne ca Sorano entrée simple bi 10 000 la VIP 20 000 VIP prestige bi 30 000 la yaakaar naa ne ñëpp a koy waajal bu baax a baax et puis li fa nara a am lépp dafa doy waar ba pare xaalis bu génnee dafa am action bu doy waar action bu sensible action boo xam ne bu noble la boo xam ni moom mi nga xam ne mooy xale bu jigéen bi dina ko ci def moo tax Eben yow mi nga xam ne yaay kawee ñu ngi lay souhaiter euh, une bonne une très bonne continuation di yàlla na la ci yàlla may ndam lu bare bare bare doom de Paris ak Wally Ballago Seck ak Ramdan loolu yaakaar naa ni Abba moo koy animé eh, xam ngeen ni loolu nar a jax la et dafa nara neex ñu ngeen ci invité yéen ñëpp ce samedi entrée simple 10 000 VIP 20 000 VIP prestige bi 30 000 la na ci ñëw dina neex dina metti et dina yàgg lool lool lool donc bu ko defee ñu invité leen ci yéen ñëpp waaye bu leen fàtte ni vendredi damay def live live bu am solo ak Sénac peinture Sénac. ñoo ñu indi peinture yi nga xam ne ci mbedd bi laalatoo benn peinture mu takk la ay day taw ak peinture bi day ruus ak day kii loolu amatul vendredi plus de communication plus de précision plus de lépp soo ko bëggee xaar ma vendredi ci live à partir de vingt heures ak sanak bu ko defee ma may ay enveloppe ay bon d'achat ay enveloppe cent mille enveloppe cinquante mille yéen ñi nga xam ne yéenay samay internet xaar leen ko vendredi ak waa senak donc Sénac peinture nga xam ne ñoo gën ñoo mën ñoo ëpp doon ni ñu koy waxee nañu dem xooli clip le temps samay invité di ñëw ci plateau bi ma waxtaan ak ñoom j'ai invité Chef Talla et Griff Diouf ñu ñëw ma waxtaan ak ñoom euh, ci ak seen actualité waxtaan ak ñoom ci entrepreneuriat gi nga xam ne ñu ngi koy def ci réew mi waaye ma waxtaan ak ñoom ci yu baree bari fa ñu commencé ba fi ñu yem yan moo ci baax yan moo ci bon yu ñuy dégg yan la ñuy def yan la ñu war a def yu ñu war a yokk loolu yëpp ñu waxtaanee ko c'est seetu Sénégal euh, c'est seetu élevante c'est seetu jaay seetu jënd seetu def yëpp nañ dem xooli clip te ñëwaat léegi ngeen fekk fi ak samay invité acca Thank you. Amiin chef xam nañ ni chef taala euh, mooy defar ceeb yu baaxee xeeti togg yi nga xam di togg lu des euh, lu mu togg de jeex muy añ muy reer waaye ki nga xam ni moo snap ba snap chef taala ba tax àdduna yépp xam ko moom tamit di snapper boo xam ni les marques yi gën a mag wala événements yi gën a mag au Sénégal moom lañu ci woo euh, mu gunge ñi nga xam ni ñoom ñooy promoteurs yi wala ñi nga xam ni ñoom ñoo ko organisé donc vraiment mu nekk ku ci nekk nga nekk punkal ci waar yi nga xam ni ci nga nekk muy lu am solo mais balaa ma leen di introduire di waxtaan ak ñoom damay jël benn internaute Cheikh demal ci commentaire yi nga xool nga capturer ki ma la wax ngay capturer damay maye daal donc avant may jël euh, samay invité di wax ak ñoom damay maye benn dàll euh, balaa may jël euh, kenn rek ci ci invité yi di ko introduire di wax ak moom chef a ngi nii moom nga xam ni ki koy sinap xaaju guddi bu ne bu ko sinapee ne ko bu subaak jàmm bonne nuit mun na ko repose en paix man nag loolu man bëgg naa euh, bu ko defee ci waxtaan rek ñu waxante ndax moom xam na li muy tekki parce que parce que moom daa jàng jàng na ba am bac ba dem université yëfi maa tay la wala dafa am beneen sens boo xam ne sens bu propre la boo xam ne man mi sama jàng nga xam ne c'est très proche man maa ko xamul donc mu tekki ñu ko yooyu yëpp mu leer rek xaaral ma jël benn internaute gaaw balaa may jël samay invité ñu may ko benn daal wax naa ni ci am di tuus la am yow mi ci bëgg a procureur euh, te nga xam ni kenn du la may euh, mën ngaa woote nga jënd 77 417 50 08 nga mën a am ci crampon yi nga xam ni euh, championnat Sénégal ki nekk ci kaw ak ki ci topp ak ki ci topp yëpp am na ni jaay dàll ay authentique la ay dàll yoo xam ne booy euh, soo koy footballé da ngay nekk à l'aise ay dàll yoo xam ne ñun ñëpp moom la ñu footballé euh, Papis Mbayo Ibou Diagne euh, Bouba ñoom ñëpp xan ñëpp rek ku ci nekk ut naa la ci benn dàll boo xam ni maa la ko jox mm, nga koy fay par bëccëg ñoom ñëpp par bëccëg 500 500 boo yi ñoom dañoo booy yi ñoo góor rek mën a sañse mais dërëm yoroonu ko lépp la ñuy bëccëg. ayca bu dee am na benn internet booy bu jël na ci bàyyiwaale numéro am dama ko koy may je préfère nag de préférence les joueurs les joueurs ayca ma jëm ci invité yi ku ci nekk mën nga teg sa micro kii may jox la parole micro bi moom dañ koo taal émission bi dafa war a jeex dix huit heures trente kii moom mënul wax yàlla dogal loolu. mais au Sénégal mooy suñu nas daas <laughs> Griff Diouf maa ngi lay nuyu bu baax. ziar nañ ko wér waaw euh, seetaan ñëpp di ziar fépp fu téléspectateur TFM nekk. Mhm. fépp fu genre flows Griff Diouf nekk ci àdduna bi yëpp ñu ngi lay nuyu di la ziar di leen wax euh, bienvenue ci émission bu mag bi seetu Sénégal. ayca tey Euh, Cheikh Talla mu nekk kuñ dootul présenté waaw saf loxo euh, mën a togg lool tey bu ma la bàyyee nga nuyoon teg euh, téléspectateurs yi am na looy wax balaa ñu dugg ci waxtaan bi bismillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim mhm. ginnaaw mi sante yàlla guddi si yonent bi di sant suñu ñaari waajur te ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha si borom yàgg ko fi lool am na ko wér te ñaanal Cheikh Hamsatou Mbacké ibn Serigne Souhaïbou suñu borom yàgg ko fi lool am na ku wér mhm. xanaa di sant borom Touba rek maa ngi sant bu baax a baax a baax mais tey lan moo indi ci bon le chef da nga da nekkoon ci école boo xam ne jàngalaate ay togg nga nga dem fa ba nga mën ñoo la chef nga wala entourage bi ñoo la woowee chef lii ngay nekk ni tey di ko dund fan la commencé ak lan moo waral lii ngay dund nii. waaw def micro bi ci kaw. mosuma def formation. restauration mosoo nekk école. chef bi fan la ko jël. <laughs> chef taala bi may dégg chef taala bi lan la. xam nit ñi la bëgg di woowee chef taala. nit ñi la bëgg rek di la woowee chef. Mm-hmm. yow nga wuyoo chef bi. waaw nan de ayca ayca kon kon lii fu mu commencé. Oh, sama yaay la moom mu jàng togg nag. Mm-hmm. ndax euh, sama yaay moom mu jàng togg ndax dip ba mu nekkee xale euh, moom sama yaay dafa amoon ay seex. Mm-hmm. am dafa am ñetti yoon seex boobu boobu nag euh, dama daan xëy di jàngi. waaye mu génn di jàngi sama yaram day daw daal pour xale yi ba koy bàyyee gone yi mhm, mhm. ndax euh, damay gis mu xëy suba fajar teel lay yeewu di sang xale yi wala mu leen di defal loo xam ne gone gu nekk gone rek nga mën a doon mhm. ndax xolu yërmaane kenn ku nekk woon nga koo am ndax sama diggante mën a sama yaay xolu yërmaane say yàgg am ndax moom mënu maa wax si moom lu bari sax ndax euh, dama ko ñëwante si xale yi daal moo tamit dem école toog war a jàng sama xel bépp dañ nekk si moom. Mhm. ba mujj sax jàng xaw ma si woon lu bëree bëree. may dégg ñu naan am nga bac ay bac plus 4 xaw ma bac plus 5. Eh, yow foo jëlee kon bac ñu naan am nga bac nag. non même pas bac amu ma. dañoo baax rek te amoo bac bac yombut sax nag. bac yombut nag waaye sama bac nag mooy togg bi. ah bac bi nga amee ci togg bi mais fan nga commencé loolu da nga doon togg seen kër da nga doon. toggal sa yaay wala bi nga nekkee mag nga mën a togg parce que yow yow ci ban temps nga xam ni yow da ngaa mën lii ma xanaa maman yi man nekk suñ kër. Mhm. ba sama rakk yi fer boobu laa xam ne togg mën naa wax de sama papa sax mosu na ñibbisi danaa ma togg ngay togg fi da ko doon togg Europe te si am xaas feex mhm. nag ah, moo tax. sama papa waaw. moom mhm. da la bëggoon wax ne moo tax mu tëb ko maanaam dimbali bi mu doon dimbali yaayam. ci waañ bi. moo tax mu mun Ah, looloo tax mu mën a togg ah, dimbali gi nga doon dimbali sa yaay ci waañ bi foofu la loolu expliqué ni foofu la bëggoon expliqué ni maanaam yaayam dafa am seex amaat seex amaat seex ah. mu ñëw nag yërëm ko nag commencé nag di ko dimbali ah yaayam dafa am trois fois seex mhm. mu yërëm ko ci xale yi moo tax mu abandonné études ñëw di dimbali yaay dëgg la loolu na moo tax kii dafa dër ma dër kii bar plateau bi tey yàlla yàlla na yàlla suturaal ci plateau bi tey yàlla na yàlla suturaal ñu tey ci plateau bi kii dafa dër ma dër kii kii moom euh, daa bar en semaine dafa am seex amaat seex amaat ah loolu la léegi après nga yërëm ko ci xale yi di ko dimbali ci waañ wi maa maa ngi jégalu Griff maa ngi jégalu ay ci kon foofu nga nekkoon. moo tax nga dimbali sa yaay ci waañ bi. fekk sa yaay ci waañ bi. Mm-hmm. Euh, loolu moo tax nga dem ba mën a tokk. waaw ndax mm-hmm. balaa sénégalais yi yëpp. te micro mm-hmm. balaa sénégalais man yëpp moom moom ko jàngal. moom sama yaay waaw. ndax si la mujj bàyyi sama jàng ñëw di ko jàppale si xale yi dama daan xëy di dem marché sax waaye fu ma dem marché taxaw di jënd mère yi xam ne dama daan jaay lu sax du ma nangu di ma fayeeku. lan danaan ma danaan ma jëlal rek ndax noo xamuñu ko sax waaye danaan gis góor c'est la première fois gis góor gi dugg mm. mosuñu koo gis seen àdduna ndax ma dikkee di dugg na dinañ jox xaalis danaa ma di garaawul te ma ñaan ñaan koo xam ne daal seen xol lañ ko ci bee daal mm. te yaakaar naa liggéey nday may barke barke doom ndax euh, feccu li mu neexee nday yaay jàpp sa bëgg yaa ndax foofu laa quitté ñëw Dakar ba euh, jógee Dakar pressing laa fi njëkk a yor fii nii ah, ndax def naa def naa téyër def naa sama place Touba mm. Ah, am fa sama employé foofu noonu vraiment bàyyi loolu ñëw Dakar ñëw fii njëkk fee liggéey pricing hmm. pricing mënuma ko woon sax waaye doo yàggee nekk téer di nga xam ne mooy pricing si la ma hmm. expliqué benn yoon ma miin liggéey bépp noonu ab si laa ko jëloon di may fóotee ni may defar di fóot di ko photo di ko dugg sama compte TikTok wala sama compte Instagram wala Facebook ah, ba si nit ñu bëri commencé woon see xam ma commencé di si am ay clients di leen noonu. Hmm. ma bàyyi ko ñëw fi nga xam ne mooy euh, Liberté 1. fi laa nekkoon. amitié amitié. fi laa nekkoon euh, di fi liggéey liggéey boo xam te daal agré ba ma bàyyi prison téye laa nekkaatoon. far yàlla ma ñëwoon euh, benn restaurant boo xam ne ñu ngi koy woowee Goudrette. Goudrette Goudrette waaw bi nekk ko tey seen lesaar bi foofu laa nekkoon. waaw doon gis sama compte TikTok. ma def si ay ay formation togg yoo xam ne wala dugal si sama compte boobu seen ma gisoon woo ma foofu nag pour ma liggéeyante ñoom séminaire ba séminaire laa fa daan dem. ba waaw laa fa daan dem. Mhm. moom ba ma fa wàccee benn su ma doon seet sama benn xarit fee Ouest Foire après ku ñu wax Mor Talla ma dem di fa seet mu ne ma euh, fee barrage Bambakara nekk. fara nekkoon ñëw di ko jàng was affaire yooyu noonu mhm. daal mhm. si dama si dama loo romb noonu sax grif mi grif grif musuma xamanteek ak moom mosoo leen xamante di musuñoo xamante daf la fekk nga toog danaa nii rek ndekk na booy defaram café ma dem ndekk na yow doo fay affaire yooyu noonu si la mhm. dem li li suñu borom di dogal si diggante ñaari aadama rek moom da sama diggante ak moom ndax grif moom mënu ma koo euh, mënu ma lu bari daal ndax dama ko bëgg-bëgg koo xam ne nii fu ma toog dama koy jënee di ko xalaat ak lu mën a doon ndax min daal leen laa ñaan yàlla simba yanam yàlla bàyyeeg moom moo bëggee ndax yàlla mosul si laamin la ket ak bët fépp sama tur àgg ma fa àggale ndax kilif damaa jóge damaa jëlee si lu ndam inof si leer kon nag àdduna lu mën a mel mel lu mën a doon doon doon du ma fàtte ki nga xam ne moom yëkkër bi ñëpp xam am na solo loolu ci reconnaissance la donc dinañ ñëw euh, ci euh, li nga xam ni mooy atu ak euh, inconvénient yi nga xam ni moom la waañ bi indi ak teg gi ngay teg ay mbana di ko togg loolu yëpp dinañ ci ñëw di waxtaan parce que parfois di nga dégg yu la neex mais parfois di nga dégg yu la metti yooyu ak àdduna ànd dinañ ci ñëwaat léegi ñu waxtaan tey Griff Diouf tey man bi ma lay xam Griff ci jaay ay parfum laa la xamee Griff naka la def ba génn ci jaayum parfum yi ëlbatiku daal jékki-jékki rek nekk snapper mais bu nekkoon snapper sax comme snapper yi ñu ne waaw mais snapper bokk ci numéro un yi wala bu dul numéro un bi donc kuy def événement wala ngay def dara bëgg nga ànd ak Griff Diouf donc fan nga jógee ak naka nga def ba yegg si fi nga xam ni fi nga yegg ni balaa ñuy ñëw ci sa diggante yaak chef. waaw ah, awa comme ni nga ko waxee rek yow da nga da nga je peux dire que nga fekkee samay début quoi. fekk naa lépp euh, ni ma koy waxee tout le temps bi may jógee Guédiawaye di immigré si Ouest Foire. ndax ñu ñaar dañoo immigré si ñëw wut si. Euh, nga jóge yëmbal ma jóge géej loolu yëpp mm. euh, yaakaar naa ne ko fi ah, waaw baax dañu ne waaw yow fi nga jaar ba ñaa bi ma ñëw damaa préparé wu pour mën a wax normalement yàlla baax na ay wax du bëri yàlla baax na léegi bi ma ñëwee nag yàlla dogal ma xam ne réseaux sociaux sax moo ma indi Ouest Foire ndax hmm. snapper bi ma nekk lay laa xamanteeg ñi ma xamanteel ñëpp ba dugg Ouest Foire mais nag yàlla daf ma teel a dimbali que jëlu moon sama life rek focus ko ci réseaux sociaux comme par exemple ni ay jeunes di ñëwee ne ma Griff ñun dañoo bëgg a nekk influenceur genre ma ne ma ne leen nekkul loo xam ne da ngay tëb tëb rek nga ñëw nekk ko ndax depuis ba 2023 dire que ne yàgg na. Uh-huh. su ma mënee toog ba benn moment ñu xam ma avant ñu maa xam moo gën a yàgg fukki junni yoon mais dama focus woon ci ni nit ak ci lu mu mën a nekk. su ci amee visibilité 3000 laa commencé jaay parfum hmm. ma ne sama réseaux sociaux yi mun naa ko utiliser ba mun ci liggéey. Hmm. man ma teel a am xelu jël sama snap dugg ci jaayum parfum di utiliser sama snap. Hmm. genre presque def naa ci 6 ans yoo xam ne musuma woon sax jël samay parfum di ko yóbbu ci nit naan ko am ceyal ma lii wala wanal ma diw. dama fexe ba via sama snap ma teg samay parfum di commander je crois deux. parfum laa njëkk commandé mhm. après vingt après cent ba genre après may commandé te centaine de de parfum noonu laa ci liggéeye quatre ans yu dëgër mhm. ba am ci li ma ci bëggoon du ma ne am naa li ma ci bëgg sax mais fexe naa daal ba mun ci am ci fond bu dëgër boo mhm. xam ne genre sama waa kër léegi soxlaatuñu ñuy xal xaar ci man loo xam ne mënutuñ ko am bi ma demee nag ba moment boobu am ba ma gañee ci macha allah ay millions laa ko jël nag ma xaw ko stand by tuuti focus ci nag ci sama réseaux sociaux yi sooy xool Instagram corona bi laa ci dugg. bi muy mhm. moment bi muy am laa dugg laa dugg Instagram commencé ak ay live je crois trois mois laa ci ci def ma am sama cent mille abonnés après nag laa doog a nag ci sama Instagram mais Snap daal moo nekkoon loo xam ne man gëmoon naaj. moo nekkoon sa base. lépp lu ma mën a am ci àddina ginnaaw yàlla Snap mun na ma ko jox ba démb rek sama doom ji. soxna Diarra maa ngi ko gis mu ngi yëkkati téléphone bi rek di vidéo nii ma ne ko ah su la neexee rek ngay snap de ndax sa xaru tabaski sa xaalisu snap laa ko jëndee donc snap jox nañu lépp et jox nañu nit ñi ñu nekk tamit aussi macha allah mais tey mm. mais tey lan mooy secret yow euh, lan moo lay pousse ci sa liggéey ba tax ni événement yi gën a mag wala mm. kuy def dara wala ku am place wala kuy am événement rek il mu mm. xalaat la ci waaw euh, benn jour dafa am ku ma ko wax ma ne ko Euh, Griffe mu ne ma Griffe man sa tur laa mës a dégg mais yow suma la gis. Mhm. ma ne ko man sanam naa 4 ans nit mosuma teg bët. reetaan lañ may xàmmee ak sama tur. Mhm. damay romb sax nit mu ne ma kon ne ko waaw 4 ans kenn mosuma teg bët genre wala sama voix am rek may wax waaye sama ji jëmm ji mosuma ko wane. Mhm. ndax man dama amoon benn objectif mooy jëmm sama jëmm ji man pour man intéressul woon nit mais man audience moom ëpp loon solo. Mhm. tout le temps je disais à un ami ma ne ko man dama bëgg ba dem ba nekk numéro un sur Snap. Mhm. man loolu dama ci focus woon et aussi genre sooy Snap tout le temps ak loo mun nekk yow mi football li nga koy bëgg-bëgg am nga benn jour boo xam ne sa référence la mhm. man snap noonu la genre du sax nekk ci réew mi mais à l'extérieur je vois des américains yoo xam ne ay snappeurs lañ France yoo xam ne ay snapper la boo xëyee da naa am del topp kii del suivre kii ni ma la ko nag mm-hmm, mm-hmm. noonu depuis ma commencé snap noonu la damay xool benn waay mm-hmm. lancé ba mu nekk ndax xamul tax liggéey la man liggéey laa ko def donc daf ma dama war a focaliser ci benn nit boo xam ne damay xool ni muy liggéey man le gars le plus suivi yoo xam nga dem ñu ngi waxtaan ci ay kii am mm, moom snapul luxe Sénabul dugg ci ay. avion du man genre référence laa la laa ko def. social rek la nekk social la nekk. te ak des gars yoo xam ne dañoo fëni. reetaan xakkataay man ñi may suivre depuis 2016 ba léegi. man maa fi Sénaboon waajoo ñu yóbboon kii yi affaire am yi. waaw lii ko loolu genre mu def bëm. Mm-hmm. man genre ci loolu laay nekk. damay mm-hmm. xool ñu mm-hmm. neex ma topp leen. mais fi ma focus woon rek mooy audience. chaque jour gars yi dama leen koy wax dama leen abaa mun na ñëw indi lii peur nga te amoo audience bu war a tax nga waneel ko lii. Mhm. moom lam ci soxla du ko am. man nag dama focus ci audience bi moo tax en ce moment je peux dire que si je suis par le numéro un je sais que je suis le numéro deux. ndax xam naa ne une heure de temps je peux faire ay onze mille et quelques. ci trois heures yi moom ah, numéro un yi moom kenn du la ci génne. léegi nag looloo taxoon nag ma ne nag snap bi mën na tax mu ubbi ci sama entreprise. Mhm. mën na tax li ma ciy bëgg ci liggéey. li tax ma abandonné samay étude mën naa ko ci am te alhamdulilah na ma ko xalaate woon du ma ne yàlla defal na ma ko à cent mais sant naa ci yàlla bu baax snap ci social euh, mm. snap di ko def comme ni nga xam ni kenn daaw ko defee noonu wala euh, innover au Sénégal def beneen xeetu snap moo tax tey nga dem di snap ba snap koo xam ni peut-être tey mën nañu àdduna bu ñu ko xamee c'est grâce à loolu yaakaar naa te ba tey taxul nga bàyyi ko yaa ngi koy pousse et xam naa ni man yaa ngi pousse keneen ak keneen dinañu ñëw léegi sa relation ak ki nga xam ne chef loolu ci kanam ñu dugg ci mais chef tey jii euh, tey ñun one au Sénégal c'est un peu mal vu euh, nga gis ku góor kuy togg di yàq di yëngal di nangam di sangam yooyu parfois euh, mënta ñàkk est-ce que doo ci am ay tuuti wax yooyu dégg yu la dul neex wala yenn saa yi nga romb nit mu wax la yoo xam yooyu est-ce que du am de temps en temps. waaw abaa loolu mënta ñàkk si doomu adama ndax doomu aadama nekk doomu aadama nga mën a doon dal waaw chef dafa dal ndax àdduna dir gi da nga xam li nga bëgg nga mhm. def teg sa bët ndax yaakaar naa loolu sa loolu sa bët may sa fit koo xañ mhm. te yaakaar naa góor gi togg moom mooy góor gi jaay jën mooy góor gi waaj ñëpp a bokk yem métier mi doo ko yoree moom feselu see tedd rek feselu si yore say waajur te yaakaar naa kay toog si yor téléphone am di la sànni ay kàddu yoo xam ne ah kàddu yu doy waar la yaakaar naa diggante ba mu toog rek mën na faa liggéey am boo xam mën na ko fajee soxlaam. mu ne Cheikh Tall man foofu laa nekk ma yaakaar naa lu waaye mën a wax. dama la bàyyi borom kun fa yàggkun rek mhm, mhm. nga xam ne man sama bëgg-bëgg mooy sama cuisine te lépp loo xam ne sama liggéey da koy laaj incha allah dinaa ko jéem a def dafa doon li ëmm si benn comme si pour man may génn nit di wax di wax lee sama fuusu loolu noonu mais ci ñaar ci ñaar tey ji yaa ngi ci yaa ngi ci yëg sa bopp bu baax affaire yi mu ngi yokk fi nga nekkoon daaw euh, ren fi nga nekk macha allah tey am na lu baax loo xam ni yaa ngi ko ciy dégg wala yaa ngi ko ciy gis di nga ma wax benn bu baax boo xam ni euh, bu la mës neex la boo xam daf la marqué lool wala tamit boo ci nekkee euh, ñi nga xam ni comme ni nga ko waxee ñooy xalaat lu bon ñooy wax lu bon tey am na lenn loo xam nit mën mës na la ko cee wax ba nga am lu la metti lool lan la la ci wax nit sa wax euh, ba mu metti la lool ak lan moo la ci mës a neex ba tax euh, tey nga continuer li la ci metti ak li la ci neex. maanaam li mu si metti mooy mooy jour boobu xam ne. te micro bu baax. mooy jour bi nga xam ne damay dugg TikTok nit ñi di ma sànni kàddu yoo xam ne. kaddu yi xaw a doy waar seftaala kii góor la war a jigéen affaire yooyu noonu ndax sama langage ñu mel mhm. li nga xam ne du ko dubb samay sama wasila bi nga xam ne moom laa yaakaar du ma ko dubb benn doomu aadama mhm. te yaakaar naa nit ki mu lu yàlla bindee nga mel yéen nii da nga ko sant borom kun fa yàgg ndax nit day juddu indi loo xam ne masubaan kenn du ko mhm, xam mhm. nii am ñoo xam dañuy ñëw duñ indi tànk duñ indi loxo mhm. wala duñ indi ay bët kenn ku nit ki mënu yàlla suturaale indi cër yëpp nga nekk ak moom kaddu rek mooy problème bi waaye lépp rek dana ko seddi suuf gaalu xaj bu la su fekk ngay lekk tax ñaari góor mu la juree nga juddu ñetti la yàkk naa as góor bu ne as nga mën a doon ndax man si waat kër Serigne Dar Assane Ndiaye xam ne moom suñu tubaab mu la seexu la si ñoo laa bokk kon lu bëri na dama koy sama bopp ak am fu naa faa àgg ndax euh, sama diggante man ak Griff Diouf lu doy waar mu si am ndax ñu bëri na taala taal yow si diggante yow Griff euh, ba Griff tàmbali si rek yàgg na kañ ngay xew affaire yooyu noonu mën na ko àdduna lépp loo si gis bu ko forcé mm-hmm, mm-hmm. mbir na lépp naturel naturel rek mën na ko xew xew xew xew yu aayu ñaari mm-hmm. xew moo aay waaye sama diggante man a Griff Diouf lu si waay mën a wax na sama xolu rafet. lan moo la ci lan moo la neex ci bi nga commencé nekk ci waañ bi ba tey bi nga commencé def ay togg di jaay lan lañ la jëma sa wax loo xam ne sedd na sa xol lool. xanaa sama mbokk sama sixième sëtu Mbàkke ba ma demee Touba si tabaski gi ko siyaare mun ma si Moutala na mun naa la lool mun na ko lay Mbàkke maa la raw waaw si la ko muur xëri na ko Moutala West Fall yoo restaurant bu mag ku ñuy wax Girif Diouf moo koy sinap mu ne maa ngi gis lépp waaye nekk ko sant naa si moom sant naa ko bu baax a baax a baax na nga yokk góorgóorlu doo bëggee gudd fan mu neex la mu neex ma lool loolu na ma gën a neex sama àdduna tey jii euh, nooy waajalee euh, tey booy dugg ci waañ ñu ngi gis ay image yoo xam ni mhm. euh, ñu ngi toog ci place bi di lekk ñu ngi gis ay image yoo xam ni peut-être yaa ngi ci waañ bi yaa ngi koy togg ak yooyu damaa gis ba gis ay kileen ay nit ñu weex tey jii yow euh, nooy waajale lii plat yi naka la da nga xam li ngay togg lundi mardi mercredi jeudi wala au feeling da ngay yeewu rek xalaat dara rek togg ko. non même pas léegi-léegi damay bëgg a togg dara sax damay naan damay woo Grif dem naa marché nangam maa ngi. mais kon Grif kon kon kon affaire bi ñaari chef la kon. kon affaire bi du benn chef cuisinier benn chef cuisinier la ak chef boo xam ni moo joxe idée yi. xam nga xam nga Aba. man hmm. sama life lépp lu mën a doon dama def loo xam ne Grif du ko yëg. ndax àdduna ñu bëri noo foo mm-hmm. ndax yaakaar naa yaakaar na doomu aadama mu la jaxasee sa nit daa fekk mu neex la waaye kenn ku nekk am nga xel kenn ku nekk kenn ku nekk am nga xel kenn ku nekk yaa ngi xalaat ndax kenn ku nekk mu dikk ba si yow nag aba yow ko kiyee nangam nangam nangam bul diglu la kee wax. xaaral de sa diggante griffe mii mën nga cee dégg lu gën a ñaaw li ngay xalaat ni sax lu ñaaw. lu doy waar sax ah, ñun ñun ñun daawul waaye lépp sant borom Touba rek li hmm. nga xam ne moom boole moom na waroon naa dund ba dama xamante ak moom ndax dépp ba ma ànd moom ba léegi nii rëccu ma ci lenn lu dul yokkute ak xol bu feex di ko ñaanal borom Touba dafa ko jàmm ak taw feex. maa ngi ñëwaat ci yow léegi nga wax ñu hmm. par bis. Hmm. looy jaay ci ay mbana. ñaata ngay jaay par bis weer wi bu deewee noo koy gérer ak euh, entreprise bi fan la toll ñaata employé nga am loolu dinaa ci ñëwaat léegi ñu waxtaan ci ak say rêve euh, lan mooy say rêve foo bëgg a dem lan nga xalaat ni mën nga koo def tey fi may ñëw ak yow sama waa ji mooy naka nga def ba xamante ak chef tey dañuy gis ca koñ ba moom mi ngeen di gis nii maanaam fajar gu yàlla loolu sax euh, garaaw lu bëgg ma wax ko mais fajar gu yàlla sàkk Griff juuf bu jullee ci jumaa ji ba noppi dina wër koñ ba moom xam xaw ma li muy wér di lan la mais man xam naa ni man euh, moo ñu léemu moom moom xam naa ni moom mooy léemu koñ bi fajar gu ma xëyee yenn saa yi ma romb jàkka ji nii dem bay dugg mi rek moo may wan ne jul nañ ba pare <laughs> bay dugg ngeen moom mi génn tarkal la mu nekk nit ku am diine loolu c'est sa vie donc du ñu ci sax sori nekk di ci wax ñu ngi ñaan yàlla sàmm ko ci ci yoon boobu mu bañ cee jug ba ñu ci ñun ñi tamit ñu am diine yenn saa yi ñu julli tàkkusaan julli tisbaar Euh, timis ñëw fekk ñu ci ca biir terrain ya ñu nekk ci yeneen boo yeggee ca kër ga xaw sonn euh, xaw a nege nege ne naa bàyyi ba xaaju guddi ma jug julli ko lool nii <laughs> nga yeew yàlla yàlla sàmm ñu yàlla yàlla àtte ci yërmandeem yàlla buru baax la tey naka nga def ba xamanteeg chef waaw sànq moom la fay expliquer ci biir explication man ci pàmbak Kara mooy lavage noonu ki jaay kafe Touba. Mhm, mhm. Bamba Kara laa ko romb naa image yi image chef ni mi euh, ni mhm. muy wane ci waañ bi di togg ak ki nga xam ne moo koy snap di griffe. mën nga ñuy wanaale image yi abaa le temps ñuy waxtaan. fa laa ko noonu su ma ñëwee rek ci Bamba Kara na ma café mais abaa comme tous les Sénégalais. parce que Cheikhul su ma ne xelal ma café mu ne ma eh, ma waaw waaw waaw ndax xam ñun ñun yëpp ñu am benn jugement ci góor. bu xawoon nooy bu waxam nooy. mu ma jaayee café dama jël rek dem man Lam Diop waa ji nekk fii di jaay café moom su waxee moom. oh seen jaaykatu café bi. xas ko nag rek avancé dem seen jaaykatu café bi. waaw <laughs> deuxième jour la même chose troisième jour mu ne Griff man wax mais comme ni ma ko ñëpp di waxee rek ay dama lay suivre danga may snap ma def lii rek noonu mais genre quatrième jour cinquième jour y a une fille tudd Pauline moo ma woo ci ruq ne ma Griff talaa de daf mun togg affaire yooyu di expliquer li muy jaay café fii te Aba. talaa mënu la expliquer lépp waaye li mu dund Dakar su ko su ko doon wax fii xam naa ne après rek mooy loolu. Hmm. waaye lu metti waaw genre fi mu dëkkoon sax genre bi may tukki filmé naa ko vite fait nit ñi xaw ko gis. ñu la amee apprécié. genre il n'était pas à l'aise là hmm. genre. Hmm. kër gu goo xam ne mooy loolu waaye nag ki ko dëkkaloon tamit ku baax la dama koy wax tout le temps ma ne ko. dëkk bi xat na xat boo xam ne ku la mën a ñëw accepter la fu mu la mën a dugal. sant ci yàlla genre mu nekk situation yu metti nag bi muy. ci jaay café da doon jóge Ouest Foire 2000 lañ ko doon fay. 7 heures ba 23 heures. Mhm. te moom 7 heures su ma julee fay dama koy romb. foofu noonu. 23 heures lay ñibbi te 2000 yi muy am journée ci wéef lay dugg rek envoyé ko yaayam dox ñibbi. mu ngi ñibbi ba côté université. ça veut que moom mun na ñibbiwaale xiif du lundi au dimanche. Mhm. mais moom son problème ànd ak na encaissé xaalis ko yaayam ndax yaayam am lu mu dundee ak ak xale yi. noonu noonu noonu mais yàlla su lu bëggee dimbali dafa am ci kenn ko mu lay awle. Mhm. léegi noonu moo koy waxee benn jour rek vite fait fa lañ jënd noonu ci su Suzanne kuddu li mu soxla daal ay kuddu suñu première plat bi ñu njëkk a togg toma daal la ma ne ko dama koy sinam léegi ñu lii ko xam naa ne sax moom gëmu ko woon mais xamuloon sinam fi mu toll. Mhm. ñu snap ko vite fait yaa une fille qui m'a appelé mu ne ma almat laa dëkk nañ ma livre léegi genre ci ambiance u xam nga mënoon nañ ñoom snap mu nekk añ rek mais dama ci indaale ambiance mm-hmm, mm-hmm. ndax Sénégal loolu leen di mën a xëccee ci àddina na am ambiance ma indaale ko ambiance mm-hmm. ñu jaay affaire vite fait ma ne ko suba nag comme deux kilos nga soor suba na nga soor dix hmm? mu sóor dix kilos une heure de ñu tàng ñu ko taf léegi nag li ci li ci yéeme rek mooy nit ñi ñi bëggoon a gis sama ji jëjëm mujj wala bëgg ma occasion loolu la ci yow ñëw nag añ waa waa IAM genre mhm, su ma limee damay juum yu bari élèves di ñëw tout le temps nit ñu siiw ñu nekk Sénégal je peux mhm. dire xaaj ba ñëpp ñëw nañ fa mhm. ku nekk da ngay ñëw su alo griffe su surtout am na benn tubaab lii fii waa ji xam lu mu wooy Tomoda moo ko jëlee Italie indi ko ba fii mooy kii mu lekk si ko Tomoda la lekk si mu ànd ak italien italien bii nii waaye jii toog nii. ñoom ñoo ko way clip bi fii la ko tourné. ndeysaan la way. mais genre moom nee na dafa gis ni ñu ni ñu initier affaire bi ni mu hmm. rafetee. mu jëlee ko Italie indi ko. plat bu compliqué la plat boo xam ne bari duñ ko lekk. non bu bu extraordinaire. xale yu góor yëpp nag ñoom ñu ngi wax ñëpp bàyyi ma ñu yow eh, bàyyi ma ñu mhm. noonu la ñëwee ñu commencé snap bi nag mu nekk quelque chose de naturel. Mhm. aba gars yi li ñu bëri sax dañ naan la. diw xewoon na fi xeew yi diw xewoon na xeew yi dëgg la talaa décembre ba juillet mu ngi fi genre lan mooy sa secret man leen juste que bu ñu imposer nit ki nit nit nit ki nit ñi dëgg la bàyyil nit ñi ñëw ci moom dëgg la genre mu nekk lu naturel ñuy xëy di togg demoon na fi Touba toog fa ay jour ñu naan ma su talaa ñëwaatee kenn du jëndati patati patata man leen soo leen jógee fii dëgg da nga indiwaat feneen fi nga ko indi rek mooy fexeel ba moom li muy liggéey mu nekk lu naturel pare mu rek mu neex mhm. am qualité moom li li ma neex moom mooy dafa am hygiène maanaam dafa set ñi jënd ci moom ñëpp loolu njëkk a remarqué ci moom mm-hmm, mm-hmm. xam nga vidéo da ngay waaye am na yu bëri mënoo ci wàcc xel de un moom ak lu corona amul du wax mukk wàcc gémmiñam noonu te takk gant da koy sol mm-hmm. ñu fay ñëw di ko dimbali di leen solal gant chaque jour laa wax nee naa ko yow soo bàyyil ordinateur léegi nga dee biir këram ak appartement am xam genre après dama ko télé fee mu nekk lu wel ko appartement we sofaar yow ci yéeme rek mooy moom il emploie des jeunes. ay booy jóge ay Kër Massar ñoo xam ne hors Sénégal fin fond ñëw fii jëndal leen scooter ñu ngi dawal di livrer am nañ onze livreurs. bi ma lay invité euh, dama ko woo man ak moom démb yu waxtaan nañ lu yàgg. Mm. waxtaan nañu yàgg parce que li day intéressé réew mi eh, nga gis benn nit kese eh, mu taxaw eh, timtin di tibb ak di yàq war nañu xam lan moo nekk ci ginnaaw kooku mm. war nañu koo xam kooku fan la jaar war nañu xam kooku nu mu def ba yegg si fii et que lii c'est très important dañuy bëgg di xam lu mel ni mais tey Griff yow ak moom lu ngeen séq snabal ko mu togg di jaay di yàkk di jaay <laughs> wala da ngeen séq benn affaire boo xam ne yéen ñaar ko moom mm. projet bi yéen ñaar ko moom wala aba lool genre xam naa ne yow yaa ma ko. Mhm. yaa koy laaj ma ma mën la ci répondre mhm. ndax façon site bu nekk ñëw na fa. Mhm. di ma ko laaj am na xam ne ma ko laaj indirectement lañ koy wax. ba sax ay sama yenn xarit dañ lay romb toog naa la gis. sa restaurant bi. yéen yaa moom bi. aba li gën a yéeme mooy. jaamu yàlla yomb na. te du ma ne ñoo ngi koy def à cent pour cent. waaye man dama yaakaar ne li gën a neex ci àddina. jaamu yàlla la mhm. te jaamu yàlla bi gën a neex si jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla ci doomu aadama yi dëgg la talaa lu gën a yéeme laa lay wax rek mooy saag bi muy oddoo mhm. sa xaw ma li ci nekk te décembre ba juillet li garaaw mooy mois bii di ñëw lay soog a commencé fay location moom bii di ñëw fan si fi mu dëkk appartement ah mois bi lay doog a commencé fay maa ngi doog a jël sama loxo jox ko ne ko fayal ndax amul tax mhm. buux naa oto bi oto bi tàq waaw léegi nag góor yàlla nga teggi sa léegi nag leen laay def man. Mhm. mooy ku lay laaj mën na la indi jox ko. dëgg la waaye léegi man dootul man maay def nii jox ko. kon mooy jaay moom ba bu jaayee. def ci kafagaam yow. pare naa ci sekkuma ak moom daa ma li ma sekk ak moom mooy su ma xëyee naa nekk employé am abaay sax man kii dama koy snap barki Cheikhul Khadim mu ne ma yóbbul ma añ bi fee ma yóbbul ko ko. nga dem yóbbu añ bi day livré ji. day moom mi tànk wala ma taal sama oto dugalal ko añ yóbbul ko <laughs> léegi laa commencé nii rek bi poy ñëwee bëgguma leen xañ seen wërsëg mhm. ñu commencé di ko lii man dama ko raxasal ndab damay xëy yeew su ma jullee juma 14 heures pare ñëw raxasal ko fomp def taj taj mu range vite fait mu ndax du bëgg tamit gars yi ñëw bëgg añ si nga ñu yéex ak yooyu noonu ma dóoral ko lépp vite fait mu ma tibbal ko yàqal ko defal ba mu xaw ba mu stable ma dem sama yoon su guddee li muy def moom range ay bagage dem ñibbi leen daal la ci nekk mu ñëw ne ma Griff lii laa bëgg ma ne ah, lii de soo ko li yoon defee woon nii ak nii ak nii waaye lam ci am fukki dërëm xawuma ko ci am nga ci fierté même bu dee amoon ci xaalis eh, yaa ngi ciy kontaan am nga ci tamit ay ñaan parce que hmm, moom mi am na ay waajur am na ay mbokk ak ay xarit yoo xam ni tey jii am na lu mu leen dimbale eh, fu ñu toog rek dañ koy ñaanal te ku ko ñaanal dina la ñaanal parce que ñoom ñi ànd ak moom moom la ñuy wax donc te yow it di nga toog quitte ak sa conscience que ni ni nga ko waxee yaa ngi julli yaa ngi yor sa course di wérd waaye am nga beneen jaamu yàlla boo xam ni yaa ngi koy def yow tamit euh, fi la griffe fekk ba fi la yóbbu ba tey yaa ngi mos sa xaalis ba war a commencé fay lu yaas may ñu tamit ñun ñu wuti loo xam dañ koy fayee lu yaas dem xooli une page de pub ak suñuy partenaire te ñëwaat léegi yeggali nga wax ñu say projet griffe tamit yow nga wax ñu say projet en tant que influenceur en tant que snappeur yow nga wax ñu da ngay rêvé ubbi restaurant bu mag wala dem euh, biir le temps sama doom bi indi ataay bi ñu dem xooli une page de pub Rima Real Mix ay ca Rima yéen waa Sénégal entreprise bi mooy defar jus 100 pour cent naturel yi jus Rima la tudd muy un délicieux mélange de jus locaux avec des ingrédients frais et savoureux lépp di 100 pour cent naturel 100 naturel boobu nag la ñu bëgg a préserver ndax suñu yaram lépp lu naturel moo ci war a dugg ju Rima 100 pour cent naturel gingembre ci gingembre am na ananas am na citron ak ndox dong nga cay dem 100 pour cent ba moo daxati 100 pour ba fu ñu ko yóbbu du taxaw. ndax am na meew ak ndox dong nga cay dem jus de tamarin rima ah jus di tax ba ah buy ba fépp fu ñu ko yóbbu jus de buy ba du des ah buy 100 pour cent naturel waaye jurima bisaab bisaab ba naanaa lañ ca def ak naturel jurima 100 pour cent naturel bisaab blanc àndandoog ananas lépp naturel jurima 100 pour cent naturel suñu numéro fixe 33 845 13 13 wala 77 186 64 64 wala 70 607 10 10 wala nga bind ñu mail ñu livrer la en quantité wala nga dugg suñu site www.jurima.com suñu suñu mail jurima naturel arobase gmail point com ju Real Mix Premium Energy Drink, la différence en matière d'énergie naturelle. Une boisson qui allie la qualité et l'authenticité. Des saveurs délicieuses, un goût sensationnel, le tout préparé avec soin à partir d'ingrédients naturels. Real Mix Premium Energy Drink, c'est un pas en avant vers une meilleure consommation. Enrichi en vitamines essentielles, Real Mix Premium Energy Drink prend soin de votre bien-être tout en vous donnant le coup de boost nécessaire pour rester en forme. Optez pour une boisson énergisante, sans taurine, sans aspartame, mais avec un goût irrésistible. Real Mix Premium Energy Drink, c'est du tonus naturel. waaw Aba heure boo ma nanga xam ne du ma animé ba jug te teguma clip bu Sabel Dieng bu bees bi pour su may animé man heure bu may animé préparé ma clip bu Sabel Dieng bi teg ko noonu à côté ah yéen tamit préparé ko moo xam may anime tour conférence daayira ak affaire festival salaam ak Sabel Dieng day way <laughs> xanaa kon mu neex léegi nag euh, bu ko <laughs> ok ok léegi tey euh, chef lan mooy say projet lan nga xam ni mu ngi ñëw wala lan ngay xalaat ci sa xel loo bëgg a def te excès guñ foofu man moom yaakaar naa lu may xalaat bari na lool lool lool mhm. te lépp lu ma mën a xalaat foo ma déggante say griif ndax mhm. griif moom gën a miin dëkk bi moom gën a xam ngor yu baax yi fi nekk ndax lépp daal mu koy bàcc ci loxoom rek fu mu ne ma defal lii loolu laay def mu waxee bu def li du ma def loolu fulla gi nga nekkee nii day mhm. bu la ci kenn dindiwul moom tarkala yow si la si la tàmbali sax ma commencé jaay ni di russi affaire yooyu si laa def sama compte TikTok def sama snap sama sama live live bi day dem ba doon ay 500 600 yi teg waaye waaye dafa am ay 500 600 yu teg yoo xam ne. Mhm. tànn ka ñu may chiffre day xaw a bari lool bala maa pare añ tànn ka commande yëpp ay mat livre yi jël dem livre ji balaa 15 heures añ yëpp daal di jeex waaye tijji naa ñetti compte yoo xam ne heure matu ko tijjee contact yi gën a ñëw rek ñu signalé mu daal tëj compte. ñu signalé la bis guddi rek moo si mujj sama compte mu mujjee yoon nii rek dañ ko signal ba dagg compte. c'est mhm. yàlla baax na le meilleur reste boo xam ni euh, dañ naan place euh, taala lii mooy place am wala lan nga xalaat da nga xalaat dem ba bàyyi lii dem am leneen loo def wala da nga xalaat continuer ci lii nga xalaat lii moom yaakaar naa si rafet seen nekk moom pour yàlla si may leneen loo xam ne moom laa bëgg daal ndax sama bëgg-bëgg daal mooy cuisine bi ndax ba mu nekkee tout temps bu ni ma toll nii liggéey bu nekk jaar naa sa waaye sama xel sama xalaat lépp si cuisine bi la nekk ndax yaakaar naa nit ku loo bëgg lool moo lay jariñ mhm. te yaakaar naa togg moom yéene koy def mhm. te yéene tamit xol bi sell lay doon te yaakaar naa lekk doo koy doo koy def waa nga du lekk ku neex goo xam ne ah doo koy lekk di si ànd xol bu sedd. Mm-hmm. ndax fi pain bu baax fu nit yor. lekk bu baax moo la koy jox loolu mooy àdduna bi nag. man nag sama cuisine. chef taal bi Griff Diouf moo nekk sama compte TikTok. Mm-hmm. fu waay mën a nekk si Dakar wala fu waay si Afrique waa fépp daal chef taal bi laa def sama compte TikTok. Ah, sama profil WhatsApp bi ma ànd ak moom suñu photo boobu ma def compte TikTok képp koo xam yaa ngi bëgg chef taal ak Griff Diouf foo mën a nekk si Afrique maa lay demande nga dem. Ah, démarche compte TikTok boobu noonu. ayca am na solo donc tey am na euh, ñoo xam ne yow ak ñoom da ngeen ni liggéey ensemble nga war leen sant aussi ñoo xam ni dañ ci jàpp bu baax ak client yi nga xam ni chaque jour ñoom dañuy am na ñaar wala ñetti client yoo xam ni chaque jour dañuy ñëw jënd si. na ñi nga xam ni ñoom nga bëgg sant. ginnaaw maire bi ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo say bokk ak say xarit di sant di sant borom Touba rek mhm, mhm. Mhm, yaakaar naa jamono ju nekk micro bi teeku fa lépp borom Touba la nekk ak say xew kenn ku ne ak yàlla si borom di yëkkati yaakaar naa di di siyaare sama client yi nga xam ne dip ba mu tàmbalee ba léegi ni ngeen man mosuñu maa jéggi dem si keneen ak keneen yaakaar naa toog bu doo si nekkee di nga dégg loo neex dégg loo naqari waaye lépp rek da nga muñ rek wanaa su bàyyi mu jàll di di remercier sama livre yi nga xam ne dip ba mu tàmbalee ba léegi ni ngeen man ah lu mu leen wax loolu ñuy def lu mu leen tere loolu leen di bàyyi ndax noo bokk génération noo mamancé to lu mu leen wax loolu la ñuy def maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom tamit am na solo mhm. ñu ne eh, am na ku may laaj nii ne ma ndax affaire yi danga mën a togg da ngaa saf loxo wala dafa am benn paa bu nekk ci ginnaaw boo xam dafa yor kurus ba loo toog rek mu jar ndax ndax dama dégg ñu loo toog rek mu jeex waaw lépp sant borom Tuubaa rek dañ tàmbali sëñ bi paa bu yor kurus dañ tàmbali sëñ yem si sëñ bi ndax xam nga kilifa diine kilifa aada yëpp. dañuy tàmbalee ci lay bàyyi xel. dañuy tàmbalee ci sëñ bi après ñu yem ci sëñ bi su lépp di sëriñ bi borom Touba. amul beneen paa bu yor kurus. Hmm. naa nit ñi baax ñi xam ne di chiffre gir fi juuf gis sefta foofu leen jaar di ma ñaanal leen rek. Hmm. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci invitation bi nga ñu accepté tey lan mooy euh, sa ay projet lan mooy sa ah, dafa am loo ko eh, sama doom ji nee na dina laaj ji seex nga baal ma de ku ñëw mu laaj la laaj ko laaj yaa ngi ci jàmm. Mm, chef chef chef yaa ngi ci jàmm mm. alhamdulilah. dama la bëggoon laaj rek booy dem marché ba xam pañe ngay yor leket wala lan lan ngay yóbbu. <laughs> baal ma non non non euh, bàyyi chef dina ci mhm. ma dem ba marché may gis saako laay génn may génn dugg li may dugg lépp def sama saako sama lii fi de ma sama kër. même début bi. Mhm. laa doon duggee waa. par la chef ayca ñu dem ci say projet wax ñu euh, li nga xam ni moom moo lay xaar ci influence gi ak euh, sa relation ak chef fan nga ko xalaatee yóbbu fan ngeen xalaate dem ak lan ak lan moom lañu mën a xaar ci yow ci yeneen projet wala ci influence gi rek. Euh, avant boobu sax damay remercier la kooku suñu jigéen bu baax la Lalla moo nekk ci série nu mu tuddati taar série bi Lalla nekk. maîtresse maîtresse Lalla waaw Lalla Lalla. ku baax ndeysaan waaw jàpp waaye ñëw na fa lu añ si laal añ si na fa lu baari indi fa ay xéewalam nag lu bare bare bare bare jàpp na ci bu baax a baax a baax ci xel ak waaw ah. Mia Guissé mii di way bëri na bëri na kañ la ñëw bi mu bi mu. Ah, <laughs> ñoo ci biir problème yi wala avant problème yi. Ah, après problème yi loolu baax na loolu baax na Mia Guissé la ñëw reer si. dëgg la bari fa soo limee ñu fa ñëw bari nañ. trop te aussi dañ leen di remercier ndax ñoom yokk visibilité tamit moo taxoon ñu ñëw fa. ak mhm. xëcc ñi nga xam ne dañ leen bëgg mhm. talaa nag genre li mu expliqué wul suñu diggante bari na. aussi li ci xew ci diggante bi bari na ndax comme ni nga ko doon laajee sànq répondre ci sax mais au début c' était dur. man je me rappelle j'ai petit frère bu nekk Espagne benn jour woo na ma genre xol bu naqar yi naan ma wéy sama ma dëkkal fii ñu naan ma moo tax ngay snap waa jooju nga xam ne genre wax ay wax yu waaw ah, efféminé affaire leen man ma ma nit ku waaye di aussi je sais que ne yàgg naa Ouest Foire yàgg Ouest Foire boo mu bon bon xaw naa xam nit ndax Ouest Foire dañ naan Carrefour la dafa xew moom kenn waaw ñëpp fa daje waaw ah, kay mu ngi noonu nag léegi nag su ma demee bu focus ci moom rek su ma fekkoon sax ñoom la ñuy xalaat moom la man damay fexe nu ma ko ci dimbalee ndax abaa man je di dis mhm. wallaahi ak fi ma taxaw gis nga ci biir resto bi ñu ubbi je crois ki ma ko mujjee sekkal mooy koo xam ne jege na fa moo nekk septième ku ma tuubal te comme ci restaurant bi lañ xamante tuub jullit nekk jullit nga barki Cheikhul Khadim maan waaw maanaam du du li ñuy liggéey lépp la ñuy wax waaye man dama naan via sama snap man gëm naa ni mun naa cee jaamu yàlla bu baax te maa ngi koy yëg nag bu baax a baax a baax a baax ñoo xam ne dama naan ak sama jëmm ju xeeb ji maanaam dinañ sopp ku tedd ki ndax sama jëmm ji ndax dañuy gis ni nga koy doxee ak ni nga koy dundee maanaam dinañ fexe daal ba góor góorlu ci suñu snap ba yow ku nekkoon ku nekkoon euh, ci li ñu nekk mhm. mu nekkoon ab jullit ba ci àgg mu génn ci. nekk leneen kooku mënoo ko indiwaat. kooku mënul ko dara fexeel nga dimbali fexeel indiwaat ko. dem na de génn na ci lii ñu ne bàyyilaat euh, bàyyilaat la woon mu génn ci fi ñu mu ngi ci lom dëgg lom lom lom lom ak lom laaj lépp mu ngi ci doo ñu ko indiwaatal ci bàyyilaat gi rek te yàlla rek tax. ndax moom pour moom lom. lom la lom lom lom yal na yàlla sàmm lom. yàlla na taxaw amiin moom sama xarit la yii moom yàlla baax na. ah kon moom ci li nekk baax na. xarit la yàlla baax na lu baax rek la nekk yàlla defal la jàmm lom yàlla defal en noonu noonu lañ ciy góorgóorloo moom nag c'est quelqu'un boobu dafa neex a dimbale. ndax nit su bëggee yaayam rek. nangoo li te pare dafa nangoo liggéey. base la Abba c'est un jeune xam ne day liggéey comme dof. base la am na benn jour ma koy vidéo ci biir vidéo yi ñu noonu muy tibb añ bi am na benn waaye bu commenté ne lii góor dëgg koy mën mhm. maanaam day def loo xam ne ni kenn du léegi la lañ ko commencé dimbali maanaam léegi la ko nit ñi commencé ñëw ku ci nekk di dugal loxo mais au début moo doon def lépp jagar-jagar yi ñëw indi affaire yi en tout cas dimbali nañ ko waaye daal ku neex dimbali la te macha allah li muy wax chaque jour nit ñi di reetaan moom daa bëgg inigiré mhm. rêve am yëpp inigiré la inigiré lan la ah yow moom ku ne xam nga inigiré nga wax ma ko inauguration ah. <laughs> moom daa bëgg inigiré yëpp loolu la place. Ah, dëgg la lan. benn restaurant bu mag. moom nga. bëgg a immigré. <laughs> yàlla baax na. sama mbokku taalibe yëpp ñëw si nag. yàlla def ko. Mhm. réewam yëpp loolu lépp rek bàyyi naa si loxoy griff. lépp mu ngi ci loxoy griff. Mhm. pour yow même sax mu ci loxoy griff. moom na bëgg rek inauguré. inauguré sama laa wee sama xol bee sedd <laughs> na. <laughs> soo ko laajoon mu xamul nag danaa xol bee sedd moo doon ko waaye en tout cas li ma mën a wax mooy. réewam yëpp loolu la te dama koy wax tout le temps bul yàkkamti. Mhm. genre. Euh, yàqamti yàqule loolu lu am la lu existé la ma a ko toogal nga jël sa temps nit ñaa ngi ñëw ñu ngi lekk sans problème te tamit sant yàlla fa mu nekk ak na muy liggéeyee su ko yàlla mënee jox xéewal bi mu am ni na ko sant yàlla ndax am nañ am na ñoo xam ne depuis un an ñoo ngi ci benn liggéey bu dëgg am nañ xaalis bi te mënuñu ko am yow nag zéro franc nga commencé ba suñ suñ ñëwee yaa ngi am journée teel wala yaa ngi encaisse teel da nga war a sant yàlla nga dem ba inaugurer ce loolu moom du du du lu ñuy waxati incha allahu rabbi soo continuer ni ngay liggéeyee nii. man nag pour samay projet tout le temps euh, snap bi ma nekk. Mhm. dama ne gëm naa ni ci laay amee lépp donc liggéey laa ko def genre tout le temps damay dégg gars naan influenceur du liggéey waaye ñi ñu naan du liggéey ci ñoom mooy ñi nga xam ne dugguñu ci par amour wala dugguñu ci naturellement. Mhm. ndax du du du ay vues wala like moo tax ñu rek ñu dugg ci. waaw li ci tax ñu dugg ci rek mooy TFM ni mu nekkee numéro un mhm. ñun noonu lañ gëmee ne Snap nit mun na ci nekk numéro un mhm. ni mu ciy nekkee numéro un nag mooy c'est sponsorisé mhm. événement day jot ñu yëkkati xaalis ñu jox la dëgg la nga couvrir événement nit day yore affaire am doxul mu nga ñëw dugal ci sa loxo rek mu dox mu fay la xaalisam donc loo mun a dem ba mun ci yor sa famille yor ci euh, sa bopp mun cee dimbali ay nit donc da xam ne loolu liggéey la donc nag ni muy nekkee liggéey nag rek mooy nga respecté ko aussi bul ci nekkee ak ñàkk ful ak wane loo xam ne nii c'est quelque chose de négatif. Mm-hmm. positivité mun na may nit lu mu bëgg. donc man loolu laa gëm te. ci la ñu nekk ko Omar Cheveux ñu ngi lay kontaanee bu baax euh, mu ngi ñuy bàyyi xel mais Seyni Mbengue kooku sama rakk la mën naa ni sama lépp la Seyni Mbengue maa ngi lay kontaanee euh, doom yaayu Fat Mbengue Babacar Mbengue ay baayam euh, sama yaay. Mm, tey Marie mooy mooy sa yaay maa ngi lay kontaane bu baax moom sama rakk la sama xarit la euh, li xew fii ci plateau beeg li xew ci sama yoon yëpp yëpp moom am na lu mu ci def moo njëkk a taxaw euh, ne ma yow lan moo tax doo def animation donc Seyni euh, ca Ouest nga xam ne seen kër lañ daan añee fa lañ daan reere yaay ji ah mama Ndeye Marie mu yàgg sonn ci ñun lool lool lool Baye Babacar moom la ñu ma déppee yàgg naa ko wax donc seeni sama dret nga yàlla na yàlla defal la jàmm bu baax a baax a baax yow tey bu ñu jël tëj émission bi ñëw la nga tëj looy tëjee da engagé daayira hee yokk nga cere de loolu ñeex waxal waxal waxal lii lan la. lii du daayira de papa. lan la. sama mag ji ah maître Laye donc moom mu am programme ak ki nga xamante ni mooy Cheikh euh, bi tey ak ki nga xamante ni mooy Rihabul euh, Kibar fee nga xamante ni mooy Cissesse le 12 août incha allah guddi tagg Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam